ñetti téeméer ak fuk moy yasin te yasin qalbul quran moy xolé alquran ya ba fuk la sin ba ñetti téeméer la sa su ngeen ametee lu diis wala lu naqadi wala lu metti wala lu ngeen ragal nit togn leen buur bu ga daanu sa kaw borom ndomba tang bu laa xoqatal ñu bëgg nangu sa dara ñu bëgg la tiñal toño yow nit yalla kese nga ñu bëgg la gañ jëlal saar yooyu tàmbalee sabaha juróom-ñaari saar lañu bu njëkk ba mooy subhaana lazi asra bi abdihi subhaana njombe subhaana lu yéene subhaana lu lu jéggi subhaana tuubi ruubi subhaana dañ ko tëgg rek comme zahaba yazhab comme taiba yadabu subhaana bu mujj gi mooy sabi sama kala ala am na yu ñu tuddee yu sabbihu lillahi am la ñu tuddee sabbaha lillahi bu mujj mooy sabis na ko laala foofu fee la amr la sabbi waaye seeta bu njëkk ba kan la fa yàlla tudd musa waate naa Moussa alkitaaba moom la Seydina Idrissa doon jàng léegi yal na yàlla fay ko sama yal na nga ko jëriñoo waate naa Moussa alkitaaba wa jaalnaa hudan li bani Israil Moussa la fa yàlla njëkk a tudd gannaaw bi mu junjee Muhammad bi abdihi mu mujj koo tudd إن هذا لفي suuf الأولى sufi Ibrahim وموسى Moussa muy juróom ñaari saar nga jàng ko jubal ko ci mbir ma yàlla dina ko faj rawat na nga defaat ko juróom-ñaar ba muy juróom-ñaar ah muy ñeen fukk ak ni mu tolloog alxayu foog yàlla def loolu ñu bëri ñu ngi téye ni bi sëriñ mi ngi denc ay million sëñ bi fan lay jëlee ni muy amee lii muy tabax lan la lan la ci ku sañu ca ñaan nga sañu ñaan yàlla bu ñëpp tëddee di nelaw jógal nga toog bu bët setee nga doon lu ñu doonul nga yegg fu ñu yeggul dégg na waaw yal loolu ngeen demee ko loolu eh, ko yal na yàlla dimbale leen yaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi naa leen yebee leneen mooy nitu yàlla yi nitu yàlla yi alwa tiña tiña fon toxo ma kana muxtaar bi dafa yaatu muxtaar bi dafa yaatu te nit ki balaa ngay mën a jaamu yàlla nga xam ko nga a jaamu yàlla nga xam ko kon dégg nañu Euh, mooy na ngeen bàyyi xel ci dinaa ci tudd ñaar euh, mooy euh, bi ci njëkk bu dee alal mooy seen seen bëgg-bëgg alal seen bëgg-bëgg jël leen laa ilaha illallah muhammad rasulullah ci limu xamsatun limu xamsatun xamu leen ko juróom-ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom mooy tolloog alhamdulilahi fattaahun razaqun mooy tolloog alhamdulilahi xamsatun mooy juróom-ñeent téeméer ñeent fukk ak juróom-ñeent nga di ci sax ñaan yàlla yow yàlla yàlla boo ma def may kuy tàll sama loxo yàlla di am liggéeyal la am dimbali ummatu muhammad sa lu ñëw yàlla dina ci def bunt déggoo ñu naan damay soppi xaalis <laughs> denc ma kii alal ci kër gi fi waaye luy dikkee dinaa ko wax yàlla yàlla dina ma suturaal maag yéen a ànd du réewu arab moo fi tabax lii demu ci benn réewu arab ñaan dowul gouvernement moo fi tabax lii dowul ONG dowul organisme maag yéen rek la maag yéen rek andil benn sagar ma andi benn sagar ñu buub am nañ suuf am nañu nangam ñu jënd ciment noonu rek ba yàlla yëkkati lépp nañ dégloo yàlla nañ dégloo yàlla wadu llah wa antum muqinun bil ijaba na ngeen di sàkku ci yàlla te wóolu na yàlla dina ko def wala bu fekkee lim boobu dafa diis ci yow nitu yàlla même bu ñuy lekk yàlla la ñuy lekk mm-hmm. luqmatun mooy lan li dégg arab mooy mooy dank luqmatun ñaata la téeméer la ak juróom-ñaar fukk ak juróom luqmatun téeméer la ak juróom-ñaar fukk ak juróom mi ngi xaalis ku amul xaalis da nga tibb dama ci restaurant bi nga ne waa jox ma palaat te lamboo sa poos luqmatun mooy tibb téeméer la ak juróom-ñaar fukk ak juróom moo tolloog fiddatun moo tolloog lan ah? waliyun latifun waliyun latifun yàlla dina méngoog say mbir te dina oyof sa dina oyofal sa latif téeméer la ak ñaar fukk ak juróom-ñeent waliyun ñaata la ñeent fukk ak juróom-benn boole mboole muy noonu li ma noon yàlla mooy mooy Muhammad ko leeralaat ndax danaa am ko tax a xool di diingat la mu wax ëpp na Muhammad mooy yàlla yàlla mooy Muhammad jëlal ahadun ahadun ñaata la fukk ak ñett. nga jël ahmadu ñaata la juróom fukk ak ñett boolem boolem mu jox la ñaata juróom-benn fukk ak juróom-benn muy allahu kon muhammad gën na yàlla miim ba miimu baatin la rek miim ba miimu baatin la miim ba miimu baatin la tudu Muhammad ci gëna a te fi la tambalé Muhammad Mustafa Muntaka Mujtaba Murtada muhtar Mahdi doyna fofu ba eh, ah? Ah. Ahmadu bo dindee mim bari ahadun ñëwaat kon Ahmadu juroom fuk ak ñett la ahadun eh, fukang ak ñett la bo leen boole moy juroom ben fuk ak juroom ben Muhammad ñata la dundu fuk at ak juroom ben fuk ak waaw soixante trois ans boole ko allahu soixante six moo jox la latif cent vingt neuf kon lépp ci yàlla la dundoon juróom-benn fukk at ak ñett la dund boole ko allahu ci yàlla mi mu ko dundoon juróom-benn fukk ak juróom-benn boole ko juróom-benn fukk ñett mu daal la jox euh, ba tey latif mhm. alaa yàlla man xalaqa wal latiful xabir mhm. allahuma utu bina fi tey si kulla asirin فإن تيسر ذلك يسرا فينزل كالتيسر والموافقة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة نقل كل شيء قدير كون أمر لن يوبال